onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma e onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma e onde bombaxe gari nan gilo ka bug malaya ama balde jega ngorma e onde bombaxe gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngor mae gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngor mae onde bombaxe gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngor mae onde bombaxe gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngor mae onde bombaxe gari nangilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nangilo ka bug malaya onde bombaxe gari nangilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nangilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye Onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma e Onde bomba e gari nan gilo malaya ama balde jega ngorma e Onde bomba e gari nan gilo malaya balde jega ngorma ye onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma ye onde bomba e gari nan gilo onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma ye onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma ye Onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma e Onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma e Onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma e Onde bomba e gari nan gilo kabuk malaya ama balde jega ngorma e onde bombaxe gari nankilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nankilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nankilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nankilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nan kilo ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nan kilo ka bug malaya ka bug malaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe yaari nangilo ka bugmalaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nangilo ka bugmalaya ama balde jega ngorma ye onde bombaxe gari nangilo ka bugmalaya ama balde jega ngorma